salaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëw nañ tey ci seen vidéo numéro 32 ba tey ci cours HTML ak CSS tey nag ñu fas yéene euh, wan leen lan naka ngay def ba mën a ràññee modèle de boîte yi am ci euh, CSS modèle de boîte yi nag kon ci CSS mooy euh, chapitre 32 bi Euh, objectif yi mooy ngeen fexe fexe ba ngeen comprendre concept fondamental boîte yi ci CSS fexe ba boîte bu ci nekk itam contenu ngeen mën ko ràññee ak yan modèle de boîte ñoo am waaye dinañ introduire tamit ci am naa beneen euh, euh, ba tey ci cours bi largeur bi ak hauteur bi ak bordure yi ak marge yi donc yooyu mooy yi nga xam ne yooyu lañ war a euh, gis tey ci misaal euh, par exemple bu fekkee da nga benn contenu padding foo ko déggee mooy marge intérieure bi margin mooy marge extérieure kon marge bi si biti moom la ñuy wax margin bu dee padding mooy mooy marge bi nga xam ne moom mooy ci biis ci biir marge nag mooy espace bi am diggante contenu bi ak ak ci biiram padding mooy après bordure bi marge bi am ci biir donc su fekkee lii mooy bordure bi donc lii bu dee bordure bi donc ci biir lii mooy margine ci biti loolu mooy euh, ci biir mooy padding ci biti moom mooy margine donc loolu la ñu war a euh, gis tey donc ñu dellu si tey fii par exemple am nañu am nañu suñu document HTML euh, document de base ñu fas yéene ci yokk par exemple benn div div nag waxoon nañu leen ci cours yi weesu ne am na ay éléments yoo xam ci bloc lañ am yoo xam ne type inline lañ div nag genre cadre la comme ni bloc la donc mën nañ def fii div après daal euh, tëj div bi après donc div bi moom moo contenir suñu benn titre ak ñaari paragraphe voilà donc créé naa boîte bi div baa ngi nii ma jël benn titre ak ñaari paragraphe def ko ci biir euh, div bi donc ñu jox ko benn classe classe égale tuddee ko par exemple div 1 div 1 euh, voilà donc ñu enregistré léegi nag lu ñu njëkk def mooy dem ci CSS bi euh, suñu div div bi ñu jox ko couleur d'arrière plan donc damay def point div 1 point div 1 def background color background color deux points jox ko jazz zéro huit huit voilà donc jox ko benn couleur mooy couleur arrière plan bi donc ñu ñëw actualiser pour xool a gis ne suñu div bi euh, am na couleur arrière plan ñu daal di changé wàññi largeur bi ndax largeur bi par défaut dafay jël page bi yëpp bu bëggee wàññi largeur bi da ngay ñëw yokk ci donc largeur with deux points nga jox ko par exemple cinq cent pixels point virgule nga enregistré ñëw actualiser nga gis ne wàññi na largeur bi donc jëlatul page bi yëpp waaye jël na genn wàll bi Euh, soo noppee par exemple ñu daal di ñëw créer benn padding mooy marge bi am ci diggante élément yi ak li nga xamante ni moom mooy cadre bi ci boppam donc mo marge intérieure donc loolu mooy padding donc dangay def padding deux points ñu def euh, vingt vingt pixels par exemple def vingt pixel solide dañu def ci couleur donc jazz voilà enregistré pour xool marge intérieure bi donc dafay marge bi am ci diggante texte bi ak contenu bi ak euh, voilà donc margin baa ngi nii euh, mën nañ def aussi donc gis nga kon vingt pixels la day day dafay dafay détage détacher texte bi ak ak cadre bi daf ci euh, donc marge intérieure donc bu dee marge extérieure nag margin ngay def foofu donc mën nga def margin margin def deux points par exemple ma def euh, cinquante pixels mooy marge extérieure bi enregistré donc gis nga fii boîte bi dafa collé à gauche ak en haut mais su ma appliqué marge extérieure dafay créer benn marge foofu donc su ma actualiser gis nga fii cinquante pixel fii cinquante pixel donc di wër kii bi yëpp cinquante pixel la donc mën nga ci yokk bordure yokk bordure bordure vingt wala dix pixel solide jox benn couleur ci voilà donc loolu mooy bordure cadre bi ci boppam voilà gis nga mu ngi noonu donc nga gis ne kon am nga benn marge entre contenu bi mooy maanaam lii contenu bi ak cadre bi mooy marge bii nga xam ne moom la ñu defoon padding am marge margine mooy bordure margine extérieure mooy bi ñu créé fii am aussi bordure bi moo nekk nii donc bordure cadre bi ci boppam kon loolu lañ leen indiloon ci kuru tay bi ñu leen di jox daje kon ci beneen cours ba tey ci seen euh, plateforme Akan Mentor